voilà amis internautes Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu amaat tout le plaisir depuis la capitale du rail tout le plaisir saa su ne euh, seen émission politique à tey nag ñu am tout le plaisir di ci dalal nag euh, suñu maman suñu tanta donc euh, honorable député Hélène moom la ñuy fas yéene donc seqal ko waxtaan maman salaamaaleykum. maaleykum salaam li maa ngi lay fay di kontaan ci seen émission au Info. ndax euh, xam naa ne seen internet yi géej tëj nañ ma dégg di nuyu waa Thiès yëpp tale ko ci kilifa yi ak si nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw euh, di leen ñaanal jàmm ju bëri bëri bëri honorable euh, gis yàgg nañu euh, gisantewuñu ci Thiès info point com xam naa internet nam nañ la également mais ci jamono ji ñu toll euh, nga xam na donc mbas mi mu ngi fii daanaka boobee ba léegi mu toll ci ñeenti weer état du Sénégal nag jëloon ay mesures ci li nga xam ne moo di loi d'habilitation bi ay leng yi ñu jéggal ko la président Macky Sall ngir mu jàmmaarloog li nga xam donc moo di mbas mi nan nga jàngatee gestion Covid 19 yi ni ko ni ni ñu ko ni ñu ko gérer gis-gis bi nga ci am lan la. maa ngi njëkk ci masaw waa Sénégal ak waa Thiès euh, ci li nga xam ne moo moo dal si kaw àddina bi yëpp te bàyyiwuñu euh, ba bàyyiwul sax cees te Thiès nee nañu mooy euh, maanaam suñu xoolee en terme de région yu impacte mooy presque la deuxième alors que c'était Dakar et Diourbel maa ngi ñaax aussi waa Thiès pour ñu gën a taxawaat Euh, pour respecter euh, geste barrière yi nga xam ñoo xam ne feebar bi am na ndax gis nañ li mu def bitim réew gis nañ ni mu nekk di lëmbe ci ci Sénégal foog naa ne tey bu ñu waxee nguur gi moom desalatuñ ko dara parce que jox nañ ko duntuwaay yépp yi nga xam ne ñoo waroon pour mu gérer feebar bi de façon efficiente maanaam ñu am ci ndam maanaam jàmmaarloo bi ñu jëlee ci ndam ndax dañ ne woon guerre la waaye bi ñu demee ba ñu sifflé ne ñoom dañoo ab dikke maanaam dafa mel ni guerre bi soo demoon guerre yow yaa jékki nga ni ah man dey mënatuma dékku euh, sama ennemi bi kon nag ñun ñëpp ku nekk na seet nu muy def waaw nu muy dëkkaaleeg moom loolu la nguur gi pexe yiñ ko joxoon ñu yeewu ñeenti weer toll fii nga xam ne tey feebar bi dafay gën di law déglu naa professeur Seydi nee na tey feebar bi maase na Sénégal kon nag dañuy muslu rek ak di fagaru ñoom ñoom it ñu ngi leen di sargal fajkat yi mais su amee lajj mën naa ne si wàllu nguur gi lay jóge ndax duñ la jox yow 1000 milliards nga war ko jël pour xeexee ko feebar bi 1000 milliards yooyu tey su ñu demee ci bilan bi liñ ci dugal ci li nga xam ne moo doon li gën a am solo mooy faj mi ak fagaru bi santiiruñ ko nañ waxante dëgg kenn sax dégg naa ko muy wax ne 6 pour cent ci mbir mi maanaam téeméer bu jot boo ci jëlee juróom benn dërëm lañ ci dindi pour dugal ko ci wàllum faj ci 1000 milliards yooyu kon wax na man kon pour man gis-gis ba nekk na gis-gis boo xam ne waroon na ak li waroon a tax ñu jànkonte ñu ja ñu am ndam ci kaw feebar bi ndax mbir mi feebar la mbir mi du ab xiif moo tàbbi ci dëkk bi. da jàpp ne xëy na ak lajj da cee da non dama ne lajj laa bëgg laa wax vraiment li may wax nii mooy amuñu ndam ci kaw feebar bi xam nga luy amuñu ndam ci kaw feebar bi suñ ku amul ndam kay lajj nga maanaam koo xam ne da nga échoué échoué nañu nañu waxante dëgg parce que 1000 milliards yi bu fekkee ne mbir mi feebar la nga jël téeméer bu ne juróom juróom benn dërëm nga ko def ci mbirum paj mi. loolu kon am nañ problème bien que fajkat yi ñu leen di sargal ndax def nañ lépp lu ñu mën pour mën na ndam-ndam ñoom en tout cas ñu ñuy jox résultat yu am solo ci ñi wër vision wu régime bi ci xeex ak feebar bi mooy problème ndax ne Diouf Sarr moom moo santaane ñu dem jëndi jël ci 1000 milliards yi dem jëndi pour 69 milliards ñu jël ko jëndee ko dund dund boo xam ne ñeenti weer ba léegi yéen su yéen journaliste ngeen am na gox yoo xam ne cees gu dund gi kenn joxee gu ko fa loolu lu am la ba fi ñu tollu nii ci ñeenti weer te ñoo xam ne da nga leen tëjoon ne pour nañ toog benn place nga ni leen da nga leen di jox dund bu fekkee ne tey toog nga ba ñu toll fii tey ñeenti weer dund gi yeggagul mais loolu doo ko teg doo wax ne Diouf saar la ki décidé ne dañuy jël ci 1000 milliards yi maanaam 6 pour cent 6 pour cent dugal ko ci paj mi kooku mooy ndeyu mbili ji te loolu du Diouf saar moo koy décidé donc loolu pour man wane na ne am nañu vraiment euh, échec foofu. Mhm. seen seen naataangoo sax ku ci mel ni Aïda Mbodj sax woon na ngir ñu woo assemblée nationale ku ci mel ni Diouf Sarr euh, ku ci mel ni également euh, le ministre Mansour Faye ndax loolu jàpp nga ne lu war a mën a nekk la. mais li li li bokk ci li indi lajj bi mooy mënuloo tëj yépp assemblée mënatul am fu mu waxee mairie yi déggu leen leen ñu wax nga jël institution yi nga xam ne yépp ñoo war a ñëw xëj na din won nguur gi. wax ko li nga xam ne la ñu sentir ak li ñu gis même opposition bi ñu jël ko daa di ko neutraliser maanaam daa di ko euh, tëj tëj gémmiñam mu toog ci ko ñam ñëpp d'accord ci loolu aussi. Euh, mais du yéen ko nangu woon yéen a ko au début bi mbootee wootee concertation bi ku jeg yëpp dañoo wuy ji. loolu mu kenn mënuta wax ne du woon waruñ woon wuy ji situation bi ak contexte ni mu demee woon ki ñëpp a waroon wuyu ji. mais li nga xam ne moom lañ seetlu bi ñu wuy ba pare fekk nañ moom defar na ay mbiram ba pare donc soo ñëwee deful dara lu dul ne la lii laa pare ak lii te su fekkoon ni que daf leen woote woon woote ah nañ ci waxtaan ba ñu indi li mu indi ñu dolli ci rek seen xalaat xëj na dinañ demee neneen leneen li mooy bi ñu paree ñoom it dañoo dem rek ne comme joxe nañ seen kàddu toog mais dafa baax ci ab dëkk ñuy am contradiction xanaa mooy xanaa mooy noppi gi opposition bi noppi gi opposition bi noppi jigul pajum feebar bi jigul jigul jigul jiguñu ci ni ñu ni ñu doxalee pour am ndam ci feebar bi assemblée ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu euh, bañ a ba euh, tënk ba ñu tënk jigul jiguñu ndax euh, question d'actualité yi député yu mel ni ay Mbodj ak yooyu yëpp indi daf doon permettre ministre yi mën a joyanti gouvernement bi joyanti mais ñoom nee nañu dañoo am loi d'habilitation mën nañ def lu leen neex doxalin bi mooy am naa loi d'habilitation rek su ma neexee ma jël mille milliards oo ku ma neex jox la marché ndax man am naa droit wu dem xëj na bañ a topp les règles du euh, nu mu tuddati des euh, pour marché public yi ni ñu koy joxe loolu aussi jiguñu ça veut que dafa bëri facteur yu bëri yoo xam ne defar tax ba te ñoom foog naa loolu moo leen ci arrangé woon parce que ça leur permis ñu def xaj na ni li ñu bëggoon def ak ni ñu ko defee donc tey nag lan moo xew ca ca assemblée ba tey seen indépendance boobu ñu am ak cër yooyu constitution bi jox leen ñu war a mën a woo nguur gi ci jamono ju mu mënti doon pour wax laaj leen moo loo xew bitim réew dañu waxante dëgg ñu def nañ fa juróomi at laf fa ne woon lañ fa fekk ak lañ fa gis jógu fa loolu nag tànk jógu fa assemblée du taxawaay bi ñuy xaar si moom duñ ko am. responsabilité Moustapha Niass xëy na dafay bokk ci lii waxoon nga fi ay jamono sax ne xëy na dafa war a dem ah mais Moustapha Niass gaa wax dëgg yàlla décevoir na nag wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñu bëri sénégalais yu bëri mais surtout ñun ñi nga xam ne aussi dañu àndoon ak moom ndax un idéal ak amoon yaakaar ci moom mu tuddee woon ko on avait choisi l'espoir espoir maanaam yeneen doxalin ci yorum réew. ak def politique ci Sénégal faire la politique autrement moo doon suñu slogan mais aussi yori yori yorinu réew mi ni ñu ko ŋaññee woon moom la mu gisoon ci régime régime socialiste ba taxoon mu fëgg bunt ba ñu am yaakaar bu mag tey suñu xoolee ni mu yoree assemblée bi ba fi ñu toll nii bu ñu waxee dëgg rek ak bu nit ñi waxul wax bëggee waxal yàlla rek dinañ wax ne déception am na ci parce que assemblée bi wax bi taxoon euh, askan wi wàcc le 23 juin si buntu pénc ma ba bëgg taal pénc ma assemblée boobu bu raw boobu la ñu fekk fi assemblée mécanique lañ ko mën a tuddee kon non majorité mécanique bon c'est vrai dañ koy wooye majorité mécanique mais mais dafa doxalin ya fa nekk daal jéggi na dayo jéggi na dayo parce que gëdd gi nga xam ne moom la chartu réew mi jox assemblée nga xam ne taxawaay boobu assemblée war ko taxawee assemblée mënu ko taxawee depuis le 23 juin te looloo taxoon askan wi génn di xeex ba daaneel nguur googu fi nekkoon ba dindi majorité ba fa nekkoon 10 mois après 23 juin 30 euh, juillet at ba ca topp 2012 ñu ra balayee fa yépp indi fa majorité Benno Bokk Yaakaar majorité boobu nag tey gis ngeen la fa xew assemblée. moom la ñuy desandi sax tëj pàcc Covid 19 bi ak euh, majorité assemblée nationale ni nga ko waxee sànq actualité coowal Moustapha Cissé Lo euh, ginnaaw bi ñu ko dàqee ci alliance pour la république dàqaat ko également ci euh, li nga xam ne di parlementaire bu coalition benn Bokk Yaakaar ci jamono joo xam ne wax nañu assemblée nationale dem na en vacances jàngat bi nga ci am en tant que député à l' assemblée nationale. affaire li xew biir li xew xeweewul ca ba. mu nga xewee ci biir APR euh, xaj na mënoon nañ ci bañ a àddu waaye comme APR tey jii moo ŋànk coalition bi nga xam ne moo jiite réew mi moo jiite mooy moo yor régime bi lépp lu ko laal dina impacter si vie politique et sociale u Sénégal moo tax xaj na loolu mooy tax ñu ciy wax man nag su ma ciy wax li ma ciy njëkk a ñaawlu en tant que jigéen mooy wax yu bon yi ñu dégg te di ko teg ci ay deru waajur yu jigéen ndax ñiy xuloo ak ñiy xeex de ay góor lañu waaye ay waajur yu jigéen rek nga dégg ñuy génnee ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci ay jigéen te loolu en tant que femme ñun ñi sax dañu xalaat ne jigéen ñi surtout ñun femme politique yi waratuñu seetaan politique ñi ñi di xeex di wax lu bon ci seeni ay waajur yu jigéen walla ci kaw jigéen loolu moom ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yem parce que Sénégal dafa mos a wormaal jigéen suñu societé dafa jox cër jigéen jox ko gëdd donc biñ man bi ma déggee wax yi dama rus te dama tiit ndax xaw ma ban modèle la ñu jox tey suñu jeunes yi te wax yi nag mën naa ne si c'est loo tey moom moom lañ tey la ñuy toog di koy doog a ŋaññ wala di koy doog a euh, wax dara mais c'est général mën naa ne Sénégal dañuy dem pant tey dañu li tubaab di wax ne on naa touché le fond loo xam ne la def doon raam di dem di dem di dem ba dugg na romb na ñag surtout sax coow li yàgg na si diggante Farba Ngom ak. Euh, waaye du ñoom kese sax seen seen seen régime ci boppam surtout ak seen parti seen parti dafa nekk parti bu bëri fitna bëri waxante lu bon moo tax dama gisee ni que depuis démb. ñu ngi wër plateau yi dinaan dañuy jéggalu askan wi dama ne mais affaire bi xanaa tey lañ doog a ubbi seen bët xam ne euh, violence verbale ak physique sax ci seen biir yàgg na fi man dey foog naa ne Sénégal c'est vrai violence politique yàgg na fi am mais lii ma gis ci juróom-ñetti at yi fi ñu ci toll ci affaire waxante lu bon ak defante lu bon même ku ku leen jege sax ñu laaxaale la ci enregistré nañ la boo waxee benn baat benn nit yóbbu ko politique bu salte moo fi nekk te politique bu salte boobu nag bu nekkee ne mënul jur lu dul ay wax yu salte politique bu salte moo jur wax yu salte yi tey mais man duma ci blâmer sax Cissé Lo moom kese parce que Cissé ci boppam nekk na fi am na fi responsabilité yu mag Sénégal tey est-ce que xam nañ ne tey Cissé Lo tey moom mooy en deuxième position tey en de vacance du pouvoir moom mooy deuxième position tey loolu loolu maari day tàlli empêchement bu amoon si président de la république kenn ñaanu ko yàlla Moustapha Niass moo ci topp après Cissé Lo mais loolu aussi nañu waxante dëgg Macky Sall moo def boobu choix c' est Macky Sall qui a choisi ces gens là moo choisir na Moustapha Niass mooy nekk président assemblée moo choisir ne ki ciy topp mooy premier vice président mooy Moustapha Cissé Lo c' est mais il connaît bien tous ces gens-là xam na leen bu baax a baax a baax a baax kon bu defee boobu choix man yéene bi mu am ci Sénégal ba di ko defal yooyu tànneef pour man. doo doo ko comprendre. non mënuma ko comprendre yéene boobu parce que man duma ma yéene bu ma am sama réew ak sama askan si ñi ma koy tànnal ci ay as ci ay doomam pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu war a. jëmmal ko daf ci war a feeñ mais munuloo ñëw yeewu tey parce que lii waruñu waru ko bett ci ay ñenn ñi nga xam ne ñoom la àndal non seulement il est premier vice-président de l'Assemblée torpillé nañu maanaam violé nañ loi sur la parité pour mun ko jox cër boobu parce que loi sur la parité dafa ne su président assemblée jiitoo nekk góor jigéen mooy première vice-président ñu ñu jalgati loi boobu pour mën a jox Moustapha Cissé Lo lu mu bëgg pour defal ko lu mu neex lu ko neex loolu moo fi am beneen bi mooy jël nañ ko sax ba jóbbu ko fi ñu loolu suñu législature la mu dem nekk parlement président parlement CEDEAO ndax Sénégal moo aye woon mais man bañ koy def ca jamono jooju suñu waxantee dëgg man de j'ai dit que je pense que Sénégal waroon na am yeneen choix yu gën yu gën a yanj waaye comme moom il fallait que Cissé lu mu bëgg mu jox ko ko donc wax ji mooy lan moo xew ba Cissé lu mu mos a joxoñ ñu dagg ko lan moo xew. tey mu am position bi ñu ñu ñu ñu daax hmm. <laughs> parce que wax ji jeexagul dégg naa ko mu ngi tontuwaat yeneen di accuser lan moo xew su fekkee ni ko pour nga jot ci nguur gi nag daf lay jaral nga def ay mbir yoo xam ne bu ëllëgee. nga ci ngay àndal ndar kepp la jël la en otage di la chantage loolu lay nirool donc man pour man int ku may interpeller mooy président Macky Sall ci boppam parce que di du lu bees lii lu du feeñ ci sëy bi dafa nuyoo ca ngoor ga dañuy desandi euh, dañuy desandi pour mhm. rek mhm. bi benn nit lañ koy laaj mooy Macky Sall bu ñu demee assemblée nag rapidement dañuy ne assemblée bi aussi jaaxal na nit yi assemblée boo xam ne bu yàggul ngeen dégg député boo xam ne dañ ko jàpp ci phobie dégg naa sax ñu ngi ko jàppee presque ca biir penc ma ci yëfu phobie ñu ni déet ne waaye ñu may ko liberté provisoire ñu ñëwati député tey wax fi ay saaga yoo xam ne tey te loolu du lu bees ah, ñun cinq ans ñu fa def ay député saagante nañ xeex nañ fa xeex yu metti ci suñu kanam xeex yu garaaw donc man je dis que on va de mal en pis bu ñu nee tey nag dañ ko dindi ndombo tànkam dàq nañ ko ci groupe parlementaire bi dindi nañ poste vice président am yooyu yëpp ay wax la parce que assemblée bi à partir du 30 juin ci li nekk ci charte bi mooy règlement intérieur dañuy jël vacances parlementaires bu ñu demee vacances parlementaires mais ku fi yor ndombo tànk sa ndombo tànk périmé na ah sa groupe parlementaire sax périmé na ndax bu ñuy commencé waat ci la ñuy tëggaat groupe parlementaire yi pour wax ne kuy bokk Benno Bokk Yaakaar wala kuy bokk donc bëri na bëri na ci ay wax yoo xam ne vraiment xëj na ay wax yoo xam ne sérieux na daal man je pense que su état suñu nekkoon ci état bu sérieux kon yu bëri yu fi xew depuis boobu depuis 2012 ba léegi ci parlement bi parlement bi balaa muy ñuy ngoon di jot ñu woote réunion lijjanti ko mooy ba Moustapha Cissé loo waxee du ñu xaar APR dàq ko ba pare assemblée bi di doog a feelu APR mooy dañoo am ay institution yu yaafus yu nasax ndaxte assemblée moo waroon a njëkk a taxaw mais assemblée dafa déglu ba dégg xam ne fan la vent bi di tourner biir APR ba ñu ne dàq nañ ko APR muy doog muy doog a agir. ñu jeexalee euh, euh, honorable ak euh, wax nga sànq ne ku gi jamono ji daanaka déggatuñ leen ci au niveau national mais au niveau de Thiès également naka nga gisee taxawaayu ku gi dafa mel ni honorable da ngeen na noppi kenn déggu leen Thiès te ci ci coowal suuf si mu ngi au niveau de Thiès ba léegi daal dégguñu taxawaay bi nga xam ne donc moom la ci kujje politique yi waroon am. waaw noppiwaayu kujje gi moom du ci réew mi. du lu gën ci kuje bi du lu gën ci démocratie bi suñu waxantee dëgg gënul ci démocratie bi moo tax ba réew mi lu bari di fi am te nag boo lëgee bu leen bu ñu waaji bettee yeewu rek dóor ne tàpp naa datu élection locale kaay leen sëgg bëre bu ñu ko yuuxoo fen parce que day fekk ne defati na mëninam rek. est-ce que dëggalul li mu doon wax ne dina dem xëy na ba euh, opposition bi moom. ba suul leen est-ce que tey yegguñu fo. Ah, da moom day am na pexe yëpp xam nga nag buy utiliser ay armes non conventionnelles pour suul nit xam nga koo xam ne yaa jor doore réew mais boo nee da ngay suul nit ñi de kenn du ci. ba ba sëqat sax ñemeetu leen ko def honorable ndam ndam à vaincre sans sans péril on triomphe sans gloire ça veut dire que ndam mën naa ne du ko ci du ko ci am ndax ndam loo xam ne da nga koy jaay doole. parce que liñ fi def opposant yu bëri lii Cissé Lo wax parce que li may dellu si balaa may tëj ci Cissé mooy tey ñu ngi bëgg suul waxu suuf si ndax wax sa ay saaga Cissé Lo ñu ngi bëgg a suul mbuxum yi ñuy wax ne dafa am ci xaalis yi ak ci jiw yi te Cissé ci boppam nee na am na ay càcc yu ñu sàcc ci teer yu bëri ñu ngi koy bëgg suul ci ay waxu sàcc loolu nag sénégalais yi dañu war a taxaw comme un seul homme pour que waxu suuf si fi jolli woon fan yii yëpp ay saaga bëgg koo nasaxal euh, waxum luubal yi nga xam ne siseloo Lo dolli na ko ci ay ay ay ay dàqaate parti bëgg koo nasaxal ñu jóg mu leer ku jégi nag comme ni nga wax nañu jógaat taxaw Thiès di nga wax ci affaire foncier bi yooyu émission lëmm la laaj man maa ngi ci doon dox Thiès waay yëpp ñu am nañu ko xam ak ñu ko xamul man mënuma woon toog di seetaan muy am mais j'ai privilégié jóg dugg ci biir dem ci gisi autorité yi muy le préfet muy le sous-préfet de Thiès Nord muy le receveur des domaines muy euh, waa cadastre waa muy ba sàll parce que Talla jéem naa ko jot nag wax dëgg yàlla ba sonn jotuma ko autant ko téléphone ba sonn jotuma ko Dieynaba la jox liggéey bi foofa moom wax dox naa ci ak moom muy descos muy urbanisme ñoom ñëpp ku ci nekk dox naa ci li ma war surtout ci désaffectation yi ak yenn action yi ñu doon mëne nga xam ne méngoowul ak intérêt Thiès ci wàllu foncier maa ngi ci dox parce que loolu laa privilégié mooy ut ci ay solution mënoon naa dem rek toog ci rajo yi ñëw oo oh, def sama point de presse wala def sama euh, wax wax ja jeex na wax ja au de dix jours trois trois jours quatre jours jeex na mais dama ba tey chaque jour maa ngi dox ci autorité yi maa ngi leen di gërëm nag ci seen ubbi ubbeeku bi ñu ubbeeku may ma ab dëglu écoute bi ñu am ak même sax yenn mesures yi ñu jël yi ñu nangoo jël pour saafara yenn ñaxtu population yi nga xam ne dañu leen laal si yenn wàll yi ci foncier bi yooyu yëpp dox naa ko ci su bilan ba jotee pour ñu wax ko dinañu ko wax ba ñu seen Ceesuwaay yi xam ne tooguñu rek di seetaan mais ñu ngi dox li ñu war a dox ci biir askan wi ak ci biir autorités yi maa ngi si remercier bu baax autorité yi yëpp urbanisme chef de service ba muy chef de service cadastre muy chef de service domaine jibisi Diouf bu cadastre muy Diop bu urbanisme nga xam ne ñoo ŋànk sur le plan technique liggéey bi maa ngi leen ci gërëm bu baax maa ngi gërëm commandant Descos ndax saa yu may yëkkatee sama téléphone woo ko am na problème yu ñu le fii le long du canal. Mm, euh, discussion yooyu yëpp jàpp nga ne dina dina dina jural la. mais jur na résultat parce que yow gis nga canalu caali bii xam nga dégg ngeen. Euh, sama ay sama ñoom frère ñoom euh, juge dem def ci conférence point de presse pour wax ne waaw spolié nañ foofu ñun balaa ñun population yi fii ñoo def collectif fii man je n'ai pas fait de collectif en tant que politique fii nii population yi doon xeex pour seen foncier ñoom laa wax def leen collectif ndax dama doon bañ lépp lu may yëkkati man di ko def ak di ko wax ñu ni damay politique wala damay wut pare ay local donc population ñoo kuréelu def seen collectif bind seen mémorandum ñu gunge leen ñu dem ci autorité yi pour ñu ànd ak ñoom jooyal leen ak jàppale leen ca lañ doon jooy ba loola tax na ba tey yoonu le long du canal bii bi collectif bi di wax waxu parcelle yooyu le long du canal de Jali fekk na ñun xeex nañ ci ba ñu ba ñu arrêté ko annulé parcelle yooyu nekkoon le long du canal loolu je prends à témoin les populations de Thiali les jeunes de Thiali yi nga xam ne dañu def benn collectif boo xam ne balaa collectif bale di juddu maa ngi sargal aussi sama ñooñu parce que ñooñu sama mbokk yooyu waa opposition ñoom it def nañ seen i xëy na tiré nañ sonnette d'alarme mais man de ñëw nañ ba maa ngi woon waxtaan na ak ñoom ñaari waxtaan ñëw nañ toog fii sama kër ñu waxtaan dem nañu dem fële route de Dakar ñu waxtaan ak impacte yi nekk foofu on a échangé mais bi ma demee ba ci biir dama leen ne man damay continuer sama démarche bi nga xam ne moom laa gis ne depuis ba ma nekkee député dinaa gis problème ma ni problème bi xëy na wax ci rek doyul balaa ngay wax dox ci ba pare waslu ci sa àq ba luñ ci mën a réparer ñu réparer ko soo mënee fexe ba ñu dakkal liñ doon def ñu dakkal ko bu buñ ko dakkalul nag bu boobaa bu la neexee nga jóg nga yuuxu wax ne mankat doxoon naa ci lii defoon naa ci lii fi ma ci tollu nag tey jii ci mbirum suuf si dox ci ut ci solution ak autorité yi ak taxaw ci ba askan wi ñu yi ñu ci gaañ ak yi ñu ci noot joxaat leen seen àq ak seen yelleef mais autorité yi aussi maa ngi leen di wax ne désaffectation moom nañu ko teg ci suuf bu mu amati fenn parce que loolu nekkut ab politique boo xam ne ci wàllu suuf lu ñu mën a soutenir la maa ngi leen di wax autorités yi te loolu chef de l'État laa koy wax désaffectation nu mu tudd de euh, euh, forêt yi ñu nekk di déclasser fii autour de Thiès nañu xool nuñ koy doxalee bu ñu jëlee forêt bi yépp ñu déclasser ko te forêt bi moo nekk impact moo moo nekk zone euh, zone zone de captage boo xam ne ndox miy jóge ci collinu Thiès yépp falay tàbbi du mën a wàcc si ci biir dëkku Thiès gii nga xam ne cuvette la bu ëllëgee lu muy jur ci Thiès nañu wax ak spécialistes yi ñu xool naka la ñuy occuper parti forêt bi nga xam ne dañ ko nar a. dinañu tëj parti boobu xëy na dañu waxtaan ci. ci foncier bi bëri mhm. na. te su ma sañoo nit di ñuy déclassé askan wi ñu àtte ñàkkal ci désaffectation yépp ñu recensé leen pour delloo leen seen alal. ci lii nga xam ne mooy forêt classée bi te ñëpp a ko bokk. jërëjëf honorable euh, kàddu gu mujj gi jëm nag ci euh, euh, laaj la sax bu mujj jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal élection locale yi bu fekkee dàqandi amu ci ñu ngi toll ci xaanaka dix mois des élections lan moo fas yéene nekk ci sa taxawaay ci élection locale yi. waaw man xam nga élection locale daaj nañ ma plusieurs fois mais toujours dit lu jotagul du ca wax te foog naa li ci xew boobu ba léegi jox nañu raison parce que am na ñoo xam ne foogoon nañ élection yi nëgë nii romboon nañ ko. moo tax aussi lii maire yi di def ci wurum suuf si aussi war nañ leen xoolaat ndax ku sa mandat jeex waratuloo fee nekk di def yenn poser yenn actes yi ñun nag lépp lu ñuy def rek ci politique dañ koy teg ci loxo suñu borom ndax lu jot yomb te suñu borom pare na lépp ba pare tey su élection yi bu ñu taxawee parce que kenn xamul ndax élection dana am waa jaa ngi nii nanguwul nanguwul bëri ji daal ah, peut pare na di ñu xaar peut-être que pare na man li may wax mooy li xalaat sama xalaat mooy opposition bi nañu defoon 2009 ci Benno Siggil Sénégal nga xam ne dañoo mànkoo def benn benn dànk bu dëgër janoog nguuru Ablaye Wade ba daaneel ko ci collectivité territoriale yi gën a bëri yépp loolu moo jig tey ku jégi ndax bu ñu ko defutee ba ñu bàyyi ko ba waa këram yi tegaat loxo ci mairie yi loolu dina ko encourager dina ko may fit pour mu uti troisième mandat loolu lu leer la donc man kujje gi lu ma leen di wax la xewoon 2009 nekkoon prémisse u euh, deuxième alternance bi mooy deuxième alternance su 2012 bi nañ nekk tey jii suñu taxawaay ñu nekk benn commencé liggéey ba nga xam ne bu ñu paree ñu dankaloo jël jël jël te changer nag gestion collectivité territoriale yi ça veut dire que bu ñu nekk xeex rek pour xeex pour ne dañ fiy teg n'importe qui l'essentiel nañu ko gagner teg fi il faut que ñu am ay paradigme yu bees ci ni ñuy yoree collectivité territoriale parce que li ma fi gis day mooy toog naa fi rek naa gaaw man tamit accaparement du foncier mhm. spoliation foncière bi ma fi gis te maire yi ñoo ko nekk di ko def aussi nañu waxante dëgg du luñ doon xaar ci ñoom. jërëjëf honorable kàddu gu mujj gi. <laughs> maa leen di gërëm Thiès Info di leen sant di kontaan ci li ngeen ñëw xëy ñu leen di jox xëj na ñu dajawaat ci ci fan yu néew. jërëjëf jërëjëf euh, honorable député moom la ñu doon dalal Hélène Tine euh, amoon mbégte saa su ne nag bu ñu ko euh, woowee rek mu ñëw wuy suñu ci Thiès info point com jaajëfal leen ci kàddu gi Ahmadou Bamba li feggoon ak Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi canta ngërëm ñeen leen jox leen rendez beneen yoon jërë ngeen jëf.